jëmm ji ñu ko daan wooye Serigne Touba xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba moom moo sos yoonu murit Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi gane àddina ci atum 1272 ci ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo 1855 ci Mbàkke Bawol mu bokk ci askan woo xam ne ay boroomi xam-xam lañ ay kàngam Serigne Momar Anta Sali moom mooy waajuram moom nag mi ngi bàyyeekoo ci Maam Maharam Mbàkke ne Maam moo jur mambala Balla Aysa mi jur Maam Mor Anta Sali soxna Mariama Bousso di waajuramu jigéen ñu gën koo xam ci soxna jaara moom Serigne Mouhamed Bousso moom mooy waajuram boo toppee ay maamam day dem ba ci nga xam ne moo di imaam Hassan mi nga xam ne sët la ci Abu Taalib ci ñaari jëmm yu sell yooyu Cheikh Ahmadou Bamba jëlee ci ñoom ak sell gu mat sëkk dëggu waaye tamit jublu yàlla suñu borom di ko jaamu waaye tamit di liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ci atu 1301 ci ginnaaw gàddaay gi dëppoo 1883 ci la Serigne Touba sos yoonu murit ci Mbàkke Kajoor ci atu 1312 ci la jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkay Daaru Xuddoos gi yoon wi nga xam ne moo di yoonu géej gi lépp nag di bëgg goo xam ne sëñ bi bëggoon na ko bokk ci waa ahlul badrin ci atu 1313 ginnaaw gàddaay gi dëppoo 1895 ci lañ ko génnee réew mi yóbbu ko ca Gabon Serigne Touba defal lu toll ci juróom-ñaari at yu teg ay weer bindil see fii ci senegal nag yóbbuwaat nañ ko ca Mauritanie mu def fa ñeenti at ginnaaw bi ñu indi ko ci ci Thiène Jolof mu def fa juróomi at ba ni mu agsee njaareem ci 1912 def fa fukki at ak juróom ndax sëñ bi sax fa la génne àddina ci fukki fan ak juróom-ñett ci muharram tamxarit atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay gi dëppoo 1927 bi fi sëriñ Touba bàyyeekoo wuy ji boromam sëriñ Mouhamadoul Moustapha moom moo njëkk a nekk xalifaam ginnaaw bi Cheikh Mor Fadal Mbacke Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Serigne Abdoul Khadr ba ci Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moo doonoon juróomeelu xalifaab Serigne Touba doonoon doomam bi mujj doon xalif général des Mourides. Cheikh Saliou Mbacké mi ngi gane àddina ci atum 1333 ci ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog 1915 ci njaareem mu nekk doomu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ak soxna Faati Jaxate mi nga xam ne Serigne Modou Assa Jaxate mooy waajuram mook soxna Mariama Jaxate mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak Serigne Souhaïbou mu nekk jëmm joo xam ne jaaral nañ ko fépp fu doomu soxna di jaar ci njàngum alxuraanul karim ak xam ci bésub àjjuma ñaar fan ñaar ci weeru korité atum 1410 ci ginnaaw gàddaay gi dëppoog 18 mai 1990 ci la Serigne Saliou Mbacké doon xalif général des Mourides mu tàmbalee wéyale liggéey bi nga xam ne moom la fi waajuram wu sell ba bàyyi woon liggéey boobee sax magam yi nga xam ne jotoon nañu fay jaar nekkoon ci Serigne Saliou Mbacke yóbbu ko fu gën a kawe mu réaliser ay projets yu am solo ci dëkk bu sell bi di tubaab bokk na ci assainissement bi gën a yaatal réseau bi nga xam ne moo jëm ci courant bi ay yeneen infrastructure yu jëm ci tali bi ak forage yoo xam ne taxawal nañ ko ci bërëb bu sell bi ba ci jumaay tubaa ji nga xam ne salaat na ko ci ay milliards yu takkoo takku Serigne Saliou Mbacke sos ay dëkk yu bëri ak i daara ba ca gën a siiw di Xelkom mu nekk tool yoo xamante ni ñu ngi ko ko jox ci fukki fan ak juróom benn ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi dëppoo 1991 président Abdoul Diouf daggal ko mille hectares daldi ko koy jébbal moom Cheikh Saliou Mbacké def ci fukki daara ak juróom di ci jàngale alxuraanul karim yar gone yi waaye tamit leen tàggat ci liggéey Serigne Saliou Mbacké yërëmoon lool gone yi waaye tamit uufoot mbooleem jullit yi ñëpp la boole woon ñu doon benn boole woon mbooleem tarixa yi ñu doon benn jëmm ji nga xam ne dafa bëri woon yërmande lool ci jullit yi mu ngi fi bàyyeekoo wuy ji boroomam ci fukki fan ak juróom-ñaar ci zulhijja di tëbaski atum 1428 ci ginnaaw gàddaay gi dëppoo 28 décembre 2007 serigne saaliw am ci kaw suuf lu toll ci juróom-ñeent fukki at ak ñaar buñ ko xaymaa ci atum jullit yi waaye juróom-ñeent fukki at ak juróom buñ ko xaymaa ci atum nasaraan si